doxal per moom lay doxal. non père xamul tax ma ni moom lay. mais yow sa leader Ousmane Sonko. waaw yow yan solution la am ci. agriculture bi. ah ak lan la mën a jàngale. ah lan la mën a jàng waaw vas-y. da nga koy invité Paco mu ñëw fi toog. non non loolu du problème non parce que non day ñëw parce que père père xaaral ñu daaneel père bu bu perturbé ci suuf xolam. maanaam xolam moom bëgguma nga génn ci émission bi te wax waxaat ko wax na ko waxaat ko. léegi moom invité ko fii mu ñëw toog moom boo ko woowee dina ñëw Sénégal ñor na ko te émission bi ñëpp a koy suivre na ñëw mu wax Sénégal yi lan la lan la lan la gisee Sénégal ci agriculture ci lépp lépp lépp donc man li may wax mooy dafa mel ne nga doon dem ci yàlla dajeeg yonent bi kat yi nooy def yow. sallallahu alayhi wa sallam. boo doon dem ci yàlla dajeeg yonent bi saa sam nooy def doo toog. ah toog rek man dama doon xeex ay at pour panafricanisme pour koo xam day gëm réew ñu fexe bi moom suñu bopp Ousmane Sonko ñëw discours am loolu la mu wane ko te jëf mooy nattu ko lim Jima Sagna di wax naan jëf moom mooy nattukaay wax. Mhm. te daf ko jëf ñu gis ko ñëpp xam nañ fi mu nekkoon li mu doon liggéey ak li mu ci mënoon am privilégié <laughs> dafa mais dañ koy accompagner jàppale ko. mais yow bokk nga ci <laughs> mhm. mi mhm. yow yan lien nekk sa ginnaaw. waaw gis nañ waa États-Unis yi <laughs> eh, dëgg ma bëgg a baale sax waa États-Unis ay eh, ñoom Ousmane Tounkara xam gis naa ko mu lay défendre lu bëri. non mais kooku activiste Sénégal rek ko ñor Ousmane Tounkara kooku Sénégal rek moo ko ñor. torop moom la wax Assane Diouf. mi nga xam mi ci kaso bi di ko wax waa kaso bi yëpp. di euh, mhm. ne dafa def apologie terrorisme mi ci kaso ba tey depuis un an kenn atewu ko. Mhm. Mamadou Camara aussi même chose kaso baa ngi ne fees del ak Covid bi. kenn toppatoo nga jaaree fa tàggoo wàlle parce que suñu. <laughs> temps bi jeex na ok ok daanaka jeex na de donc ah, mais pare kat pour euh, mot de la fin rek période. Uh-huh. dañu wax Sénégal. Uh-huh. Sadio Mané moo fi dàq football. am ñu ne El Hadj fi dàq football. am ñu ne Mbaye Fall fi daq football. am ñu ne Oumar Gueye fi daq football. am ñu ne Christophe Sagna fi dàqoon football ah.